man j'ai eu une enfance heureuse parce que fàttaliku ne lu metti la wala lu jafe ci sama ndaw quand même dama euh, à part ça j'ai été au lycée Malik Fall de de puis au lycée Val Ndiaye de Kaolack après ça euh, j'ai fait un diplôme en esthétique et en coiffure à euh, euh, Exotif et puis j'ai je suis aussi passée par l'école internationale de coiffure du Sénégal après ça, j'ai fait un diplôme d'analyste programmeur en gestion des entreprises. Euh, donc, au-delà de ça, j'ai fait pas mal de métiers. Parce que, comme les meilleurs toujours, euh, j'ai un de mes frères qui me dit souvent que Adia, tu as l'art de te réinventer. Mais il y a le fait de je suis curieuse. Je suis aussi une a des défis man fépp fu ma dem bu amatul défi rek paré na ci damay dem séti benen défi je suis vraiment une femme de défi donc euh, ci jaar-jaar toujours euh, pour exercer mon métier euh, def naa coiffure comme je l'ai dit ak esthétique ti sama salon salon de coiffure di ñafe nit di ñew ma leen di shampoing di len pédicure di len manucure foofu yëpp jaar na fa. Euh, au-delà de ça euh, j'ai fait une émission bu ñuy émission Njegemaar yaakaar naa sénégalais yi xam ko bu wér a wér a wér mu une émission de société une émission qui a marqué les sénégalais et qui continue euh, de les marquer par ses thèmes de société mu nekkoon nag jaar-jaar bu ma neex quand même bu ma neex ndax amoon na rôle boo xamante ne nii gis nañ ne daal émission boobu mu ngi koy jouer ci société bi surtout pour rendre la femme sénégalaise et africaine en général meilleure man dama gëm sama man parce que dama on est tous d'égale dignité amul sommes amul jigen aussi ñu aussi ci bi ci éducation bi ndax man toujours man dañ un peu manam dama nekkoon ci espace bo xamanteni dafa bëri won ay góor man kessa ma nekk fa jigéen donc tu es obligé de t'affirmer tu es obligé de de montrer ta personnalité d'avoir une forte personnalité peut-être loolu aussi jàppale na euh, toujours si yar bi ñu ancré ci yow ne la gëm loolu ne da nga juddou nekk jigéen ñu yar la jangal la dépense yow si yow xaliss am si yow yaakar say waju am si yow yaakar kon jigéen dafa am rôlam góor am rôlam c'est un rôle bien défini chez moi man bëgguma nekk góor jigen rek la bëgg doon parce que le rôle de femme me convient parfaitement loolu nag soo ko xamee gëm sa bopp xam sa ay potentialité yaakaar naa ne ah, dina moom jafe-jafe du ñàkk soo jugee ne waaw di nga am ñu jóg ne déet mais loolu amul importance l'essentiel mooy c'est de se fixer un but li ma sama maam doon wax chaque jour ne ma ne àddina li am solo rek mooy nga xam fan nga jëm. tey jii yaakaar naa ne jigéen ñi elles ont quand même faire leur faire leur faire leur preuve ci domaine boo mënti dem rek gis nga si jigéen joo xamante ni wane na si njàmbaaram euh, wane parce que ban damay ne le rôle premier de la femme c'est d'être d'abord une épouse et une mère parce que tey loo mënti tekki loo mënti réussir station boo mënti nekk si tu ne réussis pas ta famille aussi mooy loolu parce que loolu aussi forme de réussite la il faut pas qu'on pense que rek ñi nekk ci bureau yi ak ñi ñi yore 4 4 yi ñooñu ñoo réussir non suñu yaay yi aussi ñooñu ñuy fexe ba jox ñu éducation bu baax ba tey ñu mën a am lu ñu représente société société bi moi je dis que aussi ces mamans ont réussi elles ont réussi leur rôle parce que elles sont dans leur rôle donc euh, tey ça dépend du secteur yi jigéen ñi euh, macha allah tey keroog dama dem di euh, sama doom di jëli prix muy jigéen ma gis ne prix bu ñu yëkkati rek premier prix yi jigéen ñi ñoo koy jël mu nekk une grande fierté mu nekk espoir mais espoir boobu est-ce que dinañ ko mën a continuer di ko nourrir ba mu yegg fi ñu bëgg a yegg xale jigéen yooyu di jël prix yi tey est-ce que dinañ leen mën continuer di leen encourager à l'école pour que ñu mën a yeggale seen i jàng pour que ñu mën a tekki dara ëllëg c'est là où le bas blesse foofu mooy problème bi tey. tey tamit de l'autre côté gis nga jigéen ñoo xam ne tey tout le combat qui a été mené par les pionnières parce que on a eu des pionnières qui se sont sacrifiées

parce que l'islam li wax ci jigen mom buñ ko respecté won kon amna yo xamné kenn du ko fi wax mu am aussi jigen ño xamné ne tay combat bobu yépp dañ ko yak, dañ ko yàq parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui elle pense pense que elles sont restées à l'état d'objet jigen joo xamné ne yaakaar nga yow lo am da nga wara sa yaram mo la ko may sa tar mo la ko may sa jeunesse mo la ko may même dans une société bo waré avancer au lieu de travailler tu penses que promotion canapé mo la ko may c'est dommage c'est vraiment dommage mais amna ci ñoo xamné ci suñu sœur yi tay ñu ngi yak combat boobu nga xamné suñu yaay mëne won nañ ko je crois qu'il est encore temps de de de de gestuwaat xool xam ne vraiment jigen dal bu xamone bopam man damay naan est-ce que xam nañ suñu bop nit du rek euh, physique ba nit xel mi daf ci am importance valeur yi daf ci am importance man dama né nit bo amul vertu amoo valeur dara deseetu la. parce que pour man lolu moy doomu adama c'est des valeurs et des vertus combinées boobu moy def nit ku baax yow boo demee ba yaakaar ne tey il faut nga wane sa yaram wane sa ay pooj wane sa ay ween ça sert à quoi vulgarité comme ni nga wax léegi ak ak être sexy y a y a un pas à franchir hein, juste un pas à franchir jigéen war na mën bëgg boppam parce que man dama ne bëgguma nekk leneen lu dul jigéen di incarner lépp luy jigéen nag maanaam ca taar ba ca defaru ba ca sollu rafet la ca xeeñ lu neex la loolu c'est la femme et loolu jigéen dafa war di incarner c'est important mais nag jusqu'à être vulgaire euh, finalement euh, tu deviens banal. autonomisation de la femme société lay dimbalé. ndax il y a beaucoup de femmes chefs de famille boo génnee ci mbedd bi 5 heures du matin jigéen ñi rek ngay gis da nga ana donc pour man journée bi il bi dafa une journée bu mel noonu évaluation la ñuy def boo xam ay actes yu concret pour jàppale ñenn sœurs yi teg ay actes yu concret pour revisiter des lois qui sont caduques et qui ne sont plus à la qui ne sont pas à la faveur de l'évolution de la femme sénégalaise pour man journée bu mais folklore ah, je souhaite une excellente fête euh, de la femme à toutes les femmes sénégalaises et aux femmes du monde entier ne euh, xam ne góor baax na jigéen baax na comme ni ñu koy waxee ñaari loxooy takk tubéy waaye tamit ñaari loxooy takk sër